ay ay ay su Ndeye Saly Ndeye Saly Diop yaa dis gor Ndeye Saly Ndeye Saly yaa gore ana Fatou Diané Fatou Diané ñëw na léegi Fatou Diané ñëw na. asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki Mbacké ak waa Touba dëkk bu sell bi. maa ngi leen di nuyu. di jiital ci nuyoo bi sang bu tedd bi. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. yal na fi yàgg te wér. maa ngi nuyu njabootu mam Mor di nuyu njabootu Serigne Fallou. di nuyu njabootu maam Cheikh Ibra di nuyu njabootu maam Cheikh Anta kon wax naa njabootu Serigne Touba yëpp bàyyiwuma ci kenn di sant yàlla nag bu baax a baax sunu ndaje bi tombeek séntu weer ñëw fii ci buntu kër Sëriñ Fàllu ànd koog yéen di ko séntu kon maa ngi nuyu di ziar Sëriñ xalifa sëñ Fallou di sunu sëriñ sunu kilifa ak sunu kóllëre ma koy sant bu baax a boo ñëwee ba Mbàkke nekk fii ci matu Touba ci dëkk bu sell bi doonte jataayu politique dañu fee andi da ngay njëkk nuyu kilifa diine yi doog a ñëw nag ci kilifa politique yi. le maire de Mbacké Gallo Ba maa nuyu bu baax a di la sant di la gërëm ci sa engagement ak sa détermination yow ak waa Mbacké yëpp may nuyu sëriñ Abdou Lahad Gaynde Fatma di ko sant bu baax di ko gërëm ginnaaw biñ ko ziyaara donte ànd nañu ci langue politique waaye am na cër boo xam ne nag moom dañ ko ko nangul muy sëriñ ñun ñi ay taalibe may nuyu Serigne Abdoul Lahad Sadaga moom suñu xarit la suñu kóol la dañuy faral di wax saa su ne fàttewuma Isma Dioum di nuyu sama rakki bopp honorable Makhtar Diop Moustapha Seck Mao maa ngi lay sant di la gërëm Moustapha Seck Dianatou Bassirou Diagne Lamine Bara Alla Sylla Mor Gueye eh, Nogay Diouf Khady Diop Madame ngeen may ma nag ma beral nuyu yaay puy Serigne Abdou bi nga xam ni boole nañu ak sëñ Abdou Karim mais yaay buy ko engagé wu nekk suñu ci ndigalu sëñ Abdou Karim di ñuy jàppale ci biir ak ci biti soxna yaay buy gis naa sa liggéey. sa liggéey rafet na. sa engagement rafet na. sa jàppale rafet na. may nuyu meeru département bi. ma leen bëggee lim ñoom ñëpp. kon dañ fiy fanaan. donte nag bëgg naa fanaan ak ndax mobilisation bi ngeen def tey c'est carrément une mobilisation exceptionnelle li ngeen def tey gëmuma tey jii ci Sénégal am na responsable politique bu dajale lu day nii boo amee nag coalition Benno Bokk Yaakaar unie derrière le leader le président Macky Sall responsable yëpp teew fi bi ma ñëwee léegi maa ngi wax ak sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma mi ne ma Touba sunu niñ ko dag niñ ko niñ ko séddale ci wàllu politique ñëpp teew nañ fii ñëpp mobilisé nañu waa Mbacké bien derrière leur mère Galoba. fii nag bu ma fi taxawee gis cette jeunesse déterminée cette jeunesse engagée cette jeunesse qui a envie de nous accompagner bien évidemment man bi ma njëkkee biñ ma tànnee ba tey la ma mooy je serai le président de l'emploi des jeunes emploi jeunes day sama yitte dinaa si ñëwaat léegi waaye boo ñëwee ba fii ci Mbacké peggu Touba li ma fi njëkk a wax mooy problème mu ndox waxal waay fan ñëw naa fi inauguré château d'eau bi nga xam ne moo fi andi ndox mu neex muy château d'eau bi njëkk mais loolu nuyoo la ndoxu Touba ak ndoxu Mbacké dina jóge Lac de Guiers ñëw ba fii ku nekk Ndakaaru maa nga nekk feneen ndox bi ngay am dinañ ko am fii ci Touba te du loolu mooy engagement bi may njëkk a jël ci département de Mbacké bu ngeen ñu seen confiance te amatuma ci sikki sàkk ndax li ma gis fii doy na ma ndox mi dinañ ko régler définitivement waxuma ndoxu ndoxu Mbacké lay jógee ñëw ba fii da ngeen ko mérité am na lu maire Gallo Ba wax léegi tey jii vous êtes le premier département du Sénégal dañ ko sant sëñ Touba ndax nit ñi dañ daan xëy jubali Ndakaaru ndax foofu la yaakaar amoon Ndakaaru ba at bi ñu ñu génn moo doon premier département wu Sénégal waaye fi mu nekk nii premier département bi Mbàkke fii te bu nekkee premier département bi Mbàkke la Touba kon ci wàllu infrastructure ci wàllu assainissement ci wàllu ut liggéey wàllu infrastructure yi wax naa ko léegi dinañ ci taxaw ndax nee naa leen premier mandat bi lépp ci équité lañ ko jëmale lépp ci nit ñi lañ ko jëmale waaw booy liggéeyal nit ñi da ngay dem fi ñu nekk fi nekk fii kon def leen li leen war ndax mu gaaw ndax li leen war le 24 février ngeen ko war a def ci jàmm ak salaam bu ngeen ko defee le 24 février engagement bi jël ko fii ci Mbacké liggéey nañ ci wax naa ceeb ñi ma war a waxal yëpp